c'est Madame Sow Mati Senghor bi coordonnatrice du réseau des enseignants APR de Thiès tey nag dañoo dajalew dañoo daje woon fii réseau bi euh, bi élection bi jàllee ñu ne nañu remercier président de la république remercier ko d'abord ci bilan bi mu def parce que kat ku gis résultat yi xam ne président bilan wam moo ko fal di remercier ko aussi ci esprit d'ouverture bi mu def lancer appel o dialogue à l'unité parce que loolu wan na ne ne moom patriote la mën na njiit parce que njiit mooy koo xam ne da ngay mën a tëddee njaaxaanaay doo seet kii àndoon naag man kii àndut ak man nga woo ñëpp te xam ne ñëpp a bokk Sénégal donc appel boobu ñu ngi koy rafetlu trop. bu loolu weesoo aussi ñu ngi félicité responsable yi nekk ci mouvance bi yëpp parce que président bu amee bilan bu baax ñoom ñoo ci participer ci gox goxaan yi pour ñu gañe maa ngi remercier ñi nekk Thiès di remercier ñi nekkul Thiès di beral nag mention spéciale membre du réseau des enseignants de la l'APR depuis 2012 ñi ngi ànd Thiès di liggéey te ñëpp xam nañ ne conditions yi nekkul conditions yu yomb mais malgré ça amul kenn ku ci découragé te bu ma nee membre du réseau des enseignants yemale ko ci enseignants yi parce que 2014 dañoo teg un an un concept un enseignant un comité dem nañ nag ba concept boobu nekk réalité parce que parmi les membres du réseau il y a 120 membres qui ont effectivement monté des comités à travers les différents quartiers de Thiès te bi campagne bi dikkee nag xëy na li may wax ne xaw nañoo am manque d'organisation masse bu tool noonu waroon nañoo nekk au cœur mais bi campagne bi dikkee pour dire la vérité on a été laissé en rade mais malgré ça amul benn membre bu découragé dem nañ sax ba génn ci suñu poche comme nañ tàmmoon di def di battre campagne pour le président de la république lu tax ñu def loolu parce que élection bi xam nañ ne enjeu bi président la te amaana président bu fi toogoon du am doxalin boobu kon nag ñun du ñu jël ci wu nit boo xam ne du bu normal bi tax ñuy sanctionner président dañ ne on va mouiller le maillot kenn du ñu jiitu ci rendez-vous de l'histoire mooy falaat suñu président de la république Macky Sall moo tax enseignant bu ci nekk la nga ca war a bay sa waar nga ko ba ñu am victoire kon yéen ñii dama naan leen gàcce ngaa di remercier aussi uh-huh, di remercier euh, femmes yi nga xam ne du ñu ay jàngalekat di ñu coordonneel ay comité parce que ku wax élection présidentielle wax moyen ku wax campagne wax moyen surtout bu nekkee ci parti boo xam ne au pouvoir la mais bi ñu demee ci suñu militants yi waxtaan ak ñoom wan leen ne ah wax dëgg yàlla dañuy jàppale président mais ay moyens dañ koo dégg mais gisuñu ko bañ leen ko waxee dañ koo gëm ànd ci ñun nekk suñuy relais ci quartier yi muye seen mayo ba yaakaar naa ne 100000 voix yooyu ñu am suñuy voix yu baree baree baree bari ma nga ca kon maa ngi leen di jaajëfal. maa ngi wax nag moyen di préciser lu tax may préciser parce que comme may personne morale u réseau bi ah, te affaire xaalis dafa mën a yàq dara campagne bi nag xaw ma xaalis dugg na xaw ma xaalis duggul mais damay leeral ici devant tout le monde que ne joxuñ ma benn su boo xam ne si parti bi la jógee lu tax ma koy leeral boo ko leeralul ëllëg mën nañ ne mën na am joxoon nañu diw ca moom la ñu yem moo tax nag may xamal ne le réseau des enseignants APR de Thiès avec leurs 120 comités battre nañu campagne mais avec leur propres moyen lañ battre campagne ma leen di gàcce ngaalaamal encore une fois encore di wax président de la république na gën a réorganiser parti bi à Thiès parce que kat ñeenti élection fii jaar mënuñoo fexe ba gagné on a l'habitude nag ñuy dégg que ne équipe bu dul gañe équipe buy gagné kenn du ko changé mais yaakaar naa ne contraire bi daa war a valable équipe bu dul gagné nañ ko changé essayer parce que kat te damay ñaan nag ñu essayer avec les femmes parce que nag comme góor ñu essayer nañ essayer essayer wane seeni limite pourquoi pas ñu essayer ak jigéen ñi parce que fii à Thiès gis naa fi femmes yu am ay compétences femmes yoo xam ne ku leen dénk ñu gérer la parce que gis nga mille voix yooyu ñu am mën naa ne 90 pour cent yi ay jigéenu ko liggéey mais jigéen ñi ko liggéey ay jigéen ñu wékku ci ay góor lañ parce que fii Thiès da ngay dégg ñu femme de tel femme de tel. femme de tel donc président de la république loolu yow yaa ko mën a dindi femme de tell parce que dafa jokk ci kooku jour bu demee ba am autonomie mi dootul nekk femme de tel day nekk leaderu boppam fii à Thiès am na ay Mantoulaye Diène mais li leen manqué mooy autonomie amuñu autonomie donc maa ngi lay lancer appel une fois encore nga autonomiser les femmes de Thiès nga xool ban résultat lay waa mbër bi mën naa ne mënu leen mais boo jàkkaarloo mbër mu am doole da ngay am ay pexe am ay stratégie am ay organisation boole say force nu ma koy misaalee boo fekkoon fii luy peser une tonne nga bëgg koo yëkkati yow kese doo ko yëkkati mais boo woowee groupe bu ñu ñëwee yëkkati ko donc fii à Thiès benn nit mënu fee gagner je le di et je le répète yàgg naa koo wax dans la désunion on ne gagnera jamais d'élection à pour ñu gagner dañuy conjuguer suñuy effort ku nekk xam ne la ma manqué diw mën na ko koñ bii diwa nga fa duma ñëw. fekk benn koñ am ku fa nekk may ñëw di fa wut militant te ñu bokk mu mouvance sa damay ñëw ci koñ fekk ku fa nekk ma dooleel ko mu gañe koñ ba su gañe ba dikkee jour élection carte yëpp carte président Macky Sall la donc noonu la ñuy liggéeyee mais gis naa ne Thiès bëgg visibilité bi bëri na te bëgg visibilité ak résultat ànduñu nit da ngay liggéey ba résultat ñëw nga jubilé mais ngay jubilé avant le résultat bu résultat jotee doo jubilé parce que fii Thiès da nga les comités électoraux jour bu ñu nee diw mooy jiite comité électoral ba ay membre am dañuy jubilé mel ne taalibe ak bay Fall mais bu ñu demee nag ba ca ngoon ñu joxe élection résultat doo gis kenn donc yaakaar naa ne loolu nag war nañ cee tiire ay leçons parce que du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñeenti yoon bii mooy ñeenteelu yoon à chaque fois ku ñu fal ngay kontaan. te au finish gisaguma fi nag benn comité électoral bu def élection ba mu paase ñu woote ñoo def bilan te yaakaar naa ne après les élections dañoo war a woote bilan même bu ñu perdre dañoo war a woote bilan ñu xool ce qui a marché ce qui marché su ko defee li marché wul ñu mën koo changer ba bu ëllëgee mu marché ñu gagné mais jëm ci élection di bàkku ñu dóor la nga làqatu bu élection passé nga toog bu beneen élection dikkee nga pointé waat nekk candidat di jiite waat nit ñi loolu yaakaar naa ne c'est déplorable te président nag euh, boo bëggee gagné Thiès teg fi une équipe gagnante soo bëggee gagné da ngay teg une équipe gagnante mais boo tegee équipe gagnewul da ngay changé nag teg beneen équipe boo changé wul équipe bi yëpp nga am koo génne ak koo roof ak koo dugalaat mais nag les mêmes têtes ñi ngi fi pendant quatre élections gagnewuñu dara. ba pare su paasee ñu di su ba bëgg ñoo jiite nag su yàggee sa va poser problème parce que les gens ne sont pas des éternels suivistes merci beaucoup. Euh, le, réseau des enseignants APR de Thiès s'est réuni aujourd'hui pour féliciter le président de la République Macky Sall d'abord pour son bilan élogieux qui est à l'origine de sa victoire écrasante au soir du 24 février passé. Le féliciter aussi pour l'esprit d'ouverture, de patriotisme dont il a fait montre avec l'appel au dialogue, à l'unité, après la proclamation officielle des résultats. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les responsables de la mouvance présidentielle, d'ici et d'ailleurs. et mention spéciale aux membres du réseau des enseignants à pair de Thiès et à leur comité pour leur esprit de militantisme. Je tiens à préciser ici que nous avons battu campagne dans des conditions très difficiles car on n'a reçu aucun moyen venant du parti. Si c'était une autre élection, avec un autre enjeu, on allait avoir un autre comportement. Mais on a compris que c'est le temps du président. C'est la raison pour laquelle tous les membres du réseau des enseignants à paire de Thiès ont mouillé le maillot. Et nous sommes allés vers les comités, nous leur avons expliqué que euh, nous sommes dans la dynamique de réélection du président de la République, mais malheureusement, on a aucun sou. et ces militants ont compris. C'est pourquoi je tiens à préciser ça. Parce que quand on parle d'élection présidentielle, de campagne présidentielle, avec un parti au pouvoir, on pense au moins. Et comme je suis la responsable morale de la structure, donc il est de mon devoir de préciser devant l'opinion publique que je n'ai pas reçu de moyens venant du parti. Je ne sais pas s'il y a moyen ou pas, mais on n'a rien reçu dans le réseau des enseignants de la paire. Donc, euh, pour les résultats, on a vu qu'à dans, le, dans la ville, il y a un gap de plus de 30 000 voix. On a vu aussi que dans le département, il y a un gap de 20 mille voix. Euh, les facteurs qui expliquent cette défaite, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette défaite. Certes, il y a le vote affectif, mais je crois qu'on pouvait réduire l'écart si on était mieux organisé. J'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas gagner à Thiès les élections dans la désunion. Donc je lance une fois encore appel aux différents responsables de la mouvance de Thiès pour une, un, un, un meilleur esprit euh, d'ouverture, d'unité. Parce que sans unité, on ne gagnera jamais des élections à Thiès. Je lance aussi un appel au président de la République de réorganiser le parti à Thiès. On a, euh, depuis 2012, on a assisté à quatre élections. On n'en a gagné aucune. Donc, il est temps de changer. On a l'habitude d'entendre que on ne change pas une équipe qui gagne, mais le contraire aussi doit être valable. Une équipe qui ne gagne pas doit être changé. Et je demande ici solennellement au président de la République d'essayer avec les femmes. On a toujours mis au devant des hommes à Thiès, on n'a pas gagné, donc il faut essayer avec les femmes. Parce qu'à Thiès, il y a les compétences. Et euh, euh, pour les 100 000 voix qu'on a obtenues, je sais que ce sont les femmes qui ont participé pour les Donc il est temps de mettre les femmes au devant de la scène. à Thiès, il y a des Mantoulaye Diène. Mais le problème, c'est un problème d'autonomie. Les femmes ne sont pas autonomes. On parle de femmes de telle ou de telle. Donc, il est temps d'autonomiser les femmes de Thiès. Je demande au président de la République de donner beaucoup plus de considération au réseau des enseignants. Au-delà de Thiès, dans tous les départements du Sénégal, il y a des coordinations qui fonctionnent. Il y a des enseignants qui mouillent le maillot avec des conditions qui ne sont pas des meilleures. Donc il est temps de les prendre en charge, de mieux les impliquer pour euh, les échéances à venir. Merci beaucoup. Donc avec le réseau des enseignants de la paire de Thiès, depuis 2014, on a instauré un concept, un enseignant, un comité. Et avec ce concept-là est devenu, euh, avec le temps, ce concept-là est devenu une réalité. Euh, on a 120 enseignants qui ont effectivement monté des comités. Donc je crois que cette force-là ne devait pas être laissée en rade euh, pendant les élections. On nous a laissé en rade, mais comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas empêché qu'on a mouillé le maillot. Parce qu'on a l'habitude, depuis 2012, de cotiser pour faire des activités et pourquoi pas cotiser pour faire campagne pour le président de la République Macky Sall. Je crois que à Thiès, les hommes Euh, ont atteint leurs limites. Parce qu'un euh, écart de plus de 20 mille voix dans la commune, je vois que c'est trop. Il y a des gens qui ont travaillé parce que a réussi à avoir 100 000 voix. 100 000 voix, c'est quelque chose. Mais euh, je crois que pouvait réduire l'écart. On pouvait réduire l'écart vu le nombre de responsables qui sont à Thiès. Donc, euh, je crois qu'il y a de ces responsables à Thiès qui ont montré leurs limites. Il est temps de céder la place aux autres qui pour qu'ils démontrent leurs compétences. Euh, ah, Peut-être euh, ça ne peut ne pas se reprêter sur les législatives parce que chaque élection a ses enjeux. Ici, ce sont des élections présidentielles, mais avec les législatives, on pourra... avec En, en local. Donc, avec euh, chaque élection, à ces enjeux, donc avec, euh, à ces réalités. Donc avec euh, les élections locales, on peut bel et bien gagner, mais si on n'est pas organisé. Si on est organisé, mais si on n'est pas organisé, je le dis et je le répète, on ne pourra pas gagner d'élection à Thiès. C'est la triste réalité. Qui sont ces femmes qui veulent euh, diriger l'affaire à Moi, il beaucoup, je ne veux, pas citer. mm je ne veux pas citer. <laughs> mais je sais que à Thiès il y a des femmes compétentes des femmes engagées des femmes qui peuvent porter le parti